The Diliano with this is your boy Dabzor Go. So I'm gonna be back Joxe jox leen suñu round of actualité les dernières sorties du mouvement suñu suñu avis par rapport ak clash bi fi am entre Akhlou Brick ak Ngaaka ak joxe suñu avis ci projet foraw leen bu Samba Peuzzi nga xam ne amuñu woon occasion nekkoon ci ay vibes amuñu woon temps pour pour wax ci projet boobu noonu quoi donc. sortie bi bi bi gën a mag bi bi bi ëpp punch bi bi gars yi gën a kontaan actuellement ci mouvement hip-hop la sortie de de Mortalla Gueye plus connu sous le nom de Nit Dof Killer borom ragal du jéggi raay donc xam nga c'est une sortie vraiment spéciale quoi gars yi kontaan nañ xam nga ñu ngi lay wax bro demal sa gàlle nga tëdd nga yeewu nga naan attaaye nga naan njar nga yëkkati poids yi gën a am doole xam nga revenons avec de la bonne zik revenons aussi avec euh, un mindset vraiment top quoi donc ñu ngi lay ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax a baax donc Akatsuki ils nous ont donné benn clip volant réalisation aussi nice Yoro Griff nice donc teg nañ ci benn projet aussi bu tudd Oeil de Lune donc disponible sur toutes les plateformes dem leen ngeen abonné ngeen xool li gars yi def soutenir soutenir maximum de soutien gars yi am nañu aussi la sortie de Ferir benn benn benn EP boo xam ne Sixten moo ko génne un artiste bu dëkk Kamangeho un artiste pétri de talent puis waaw dem leen ngeen xool gars yi aussi li ñuy Ngaaka <laughs> Ngaaka Blindé aussi tease na benn benn benn cliffhanger bu tudd Iblis du moins excusez-moi Iblis donc je sais pas ndax day tontu Akhlou Brick ndax day nekk ci beneen aduna ndax day bàyyi mu sedd donc je sais pas donc affaire yi daal moom mooy loolu donc je m'en vais aussi joxe sama si j'en profite pour joxe sama xalaat aussi ci ci clash bi am entre moom ak Akhlou Brick man je trouve que ne c'est la bonne guerre quoi sincèrement surtout côté saaga yi pour man de mbedd la mais donc. ku jekku sa morom duma la mais ngaa ko saaga na yi répliqué nañ ngaa ko defaat na gars yi répliqué nañ donc actuellement réplique ak réplique moo gën a saf moom moo gën a viral donc pour man c'est bien quoi te aussi mu ngi mu noonu aussi donc pour man c'est bien ñu ngi teg ay 65 millions bro 65 millions ci rap loolu du tuuti c'est bien donc pour man amul amul amul frontière amul na bu gënee bëri sax na gën a bëri quoi kii mën na dóor kii dóoraat kii dóoraat on s'en fout affaire l'essentiel que na industrie bi dox te permettre nañu aussi ñu nekk à la une actuellement ñu nekk ci tendance bi rab nekk ci tendance bi au moins parce que temps yi xawoon na loow tuuti quoi à la sortie de de de projet feu de joie bu bu gën moor bi donc à part donc xawoon na loow tuuti quoi gars nekkoon nañ ci seen bi xawoon na loow donc industrie bi mu ngi dox gaa yaa ngi koy doxal chroniqueur ñu ngi ñu war a wax ñu ngi wax Pape Sidi Fall mu ngi defay live ak moom tamit donc c'est bien quoi pour man industrie bi mu ngi dox c'est c'est ça l'essentiel quoi ñi nekk ñi nekk fële nag naan mais bul jàpp bro bul zappe bul déglu nga déglu leneen rab la amul nekk fii bul wax lii bul wax lii amul segg mais classe ku jekku sa morom duma la nay saf donc aussi dañ koy jeexalee ci ci projet Samba Pose bi foraw leen donc man je trouve que sincèrement quoi c'est mon avis personnel ah man loolu laa gëm pour man Shamposi dafa yàpp sénégalais yi donc pour man en fait mënoo nekk un artiste ak niveau Shamposi bi nga yor nga ñuy génnee projet boo xam ne nii sa waay man sax mënoon naa dugg studio dóor ko mu daanu donc pour man mu war affaire yi mën na gën a dóob quoi mën na koo mën na ko gën a liggéeyaat mën na ko gën a dóob affaire yi mën na gën mën na gën a mën na gën a sori quoi pour man Shamposi aussi l'avènement de Vigie la musique de Sambos parce que presque ci même du ma ne ci benn mood bi la nekkoon mais soriw ko woon quoi parce que ay jamono Sambos moom la fi gars yi doon snap moom la fi gars yi doon TikTok moom la fi ay moom la fi ay sangam daan viral. mais Vigie bu ñëwee les chansons de Vigie sont devenues sont beaucoup plus accessibles actuellement que ay sangnu sangnu Samba Peuzzi du moins su ma nee accessible pas dem am ko ci plateforme bi non accessible par rapport ak ñi koy déglu. moo moo gën a xalewee te moom moo gën a tolloog niveau bi gars yi doon dégloo Sambos donc pour man Sambos il doit se réinventer bu bëggee am bu bëggee toll fi mu tolloon pour man tu peux pas def featuring aussi ak ak vraiment surtout man loolu dafa ma jaaxal sincèrement gars yi bu ngeen ci amee solution commenté bind leen moo moo xam parce que man sincèrement mënoo def featuring ak vraiment un boo xamante ne nii s'il n'est pas l'artiste africain le plus suivi dans le monde c'est l'artiste africain waroon na am fu mu fu mu yóbbu un peu Samba Peuzzi quoi mais ba léegi je pense que ay 2 millions 3 millions de vues mënoo ko am ça c' un problème c' est un réel problème le dafa war a toogaat mu xoolaat boppam mu jàngaat boppam mu mu mu mu xoolaat boppam affaire yi aussi donc pour man c' est c' est très important loolu noonu quoi donc voilà amuñu benn problème ak Samba Peuzzi on n'a benn dent ak Samba Peuzzi mais juste. dañu joxe suñu avis personnel par rapport ak lu ñu gis ak lu ñu jàng en tant que mélomane en tant que présentateur donc pour ñun c'est normal ñu joxe suñu xalaat par rapport ak situation boobu noonu pour Sampo mun na réinventer wu parce que c'est un bon artiste c'est un très bon artiste c'est un très bon rappeur mun na yóbbu musique Sénégal fu sore sori parce que il a les teuf pour ça am na talent bi am na savoir faire bi chronique joxe suñu xalaat xam nga joxe actualité bi aussi mooy loolu donc seen média la c'est des Dabzor Girls am hour for the next time